min sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani wa sallam mbokk yi ñu jéem a jëfe ndigal tàmbali liggéey bi nga xam ni tey moom dajale fii waaye bala ñu yëkkati rekk benn kàddu jëmale ko ci lenn dañuy jox ñu ni bala ñuy yëkkati benn kàddu jëmale ko ci lu munti doon danuy jox sëriñ Axma Mbàkke ibn sëriñ Aliou Mbàkke mu defal ñu ñaan su ko defee ñu dellusiwaat soobu ci liggéey bi waaw ah, kon bokki jullit yi yëpp bokki talibe yi maa ngi leen di nuyu ci kenn ku ne ci turam ak santam comme ni ko sëriñ bi waxee rek bala ñuy tàmbali liggéey bi nu musul ci seytaane julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan sunu borom tabaraka wa taala liggéey bi nga xam ne ay bokki talibe ay bokki jullit ñoo ko sumb yàlla sunu boroom nangu ko te barkeel ko. bu ko defee kon nañ jàng kenn ku ne faatiha ak falaxi ak naas ak salaatu ala nabi bu waay man ñaan sunu borom barkeel liggéey bi te nangu ko bisimilah. sëriñ Axma Mbàkke mu def ñaan ngir ñu mën a soobu ci liggéey bi ah ñu ñëw nag wax leen ni leen ñoo ngi dellu siwaat fii ci ëtt bu sell bi di ëttu maam Njaga Fatim Jaañ nara waxtaane nag tomb ci loo nga xamante ni nii kenn ku ci nekk xam nga ko ndax de du tey moom lañ njëkk a amal ndaje mii nga xam ni li ñu ci jublu rekk mooy gën a màggal guddi gi nga xam ni mooy guddi mawlud nabi niñ koy baaxoo di ko defee nag ay mbokk ay taalibe ay wëllëre sunu dajee faaw rekk mu am ay kàddu yoo nga xamante ni nii danan ko yëkkati ci suñu biir ñu nag suñu wàllu bopp li ñuy def rekk mooy seet ñi nga xam ni xëy na ñoom lañu ñu tànn pour jox leen kàddu waaye ñépp fi war a mën a wax ndax liy solo ci bis bi yaatu na te kenn ku ci nekk am nga loo ci mën a wax waaye xëy na jataay bi mooy xaw a xat ba li ci bëgg lépp xëy na duñ ko mën a def waaye yàlla xam na ko lépp rek la nga xamante ni nii yëkkati nañ ko fi lu ñu tuuti tuuti yàlla na ko yàlla ful def ko muy ak mottali ci lépp la nga xamante ni li lu baax la luñ ci namoon ba tax na tey waxtaan yi nga xam ni moom lañ nar a amal ki nu ciy njëkk a déglu mooy monsieur le maire mi nga xam ni moom moo jiite dëkk bi su ko defee mu dalal gan yi waxtaan ak ñoom ci ay kàddu yu gàtt suñu ca jógee ñu jox aale caam moom itamit mu yëkkati ay kàddu suñu jógee ci lool président wu daayira bi mu di Sëriñ Moor Jaañ moom itamit dina am waxtaan bu ndaw boo xamante ne nii dana ko séq ak mbooloo mi bu nu jógee ci loolu famille Ndiaga faatim jaañ bi nga xam ni lu njiin njaaga ñoom ñooy njaag ndax fii xam nañu ni bis bi yàgg nañ ko taxawee loolu romb na suñu judd ñu ñuy taxaw tey di wax ba mu egsi ci ñun te loolu musul tumuranke benn yoon te dañuy ñaan loolu yàlla na sax te loolooy am suñu jógee ci loolu danañ jox kàddu gi ki nga xam ni moo fi taxaw taxawaayu représentant wu xalif général des Mourides ndax xam na ni Njaañ ci wanagu Tuubaa yi la lépp loo ko xamante ni dañ ko fiy sumb ak lu mënti doon diine lañ koy saf te lool yi tamit dañ ciy jëlee ndigal te ndigalu xalif général lañu suy déglu kon Sëriñ Muntaxa Mbàkke ñi ngi ñaan yàlla yàggal ko fi ci suñ kanam te may ko wér ah dañu bëgg nag waxtaan bi fii ak gee ñu mën a def lépp sunu jullee ba pare dem ci xéewal yi dellusiwaat fanaane guddi gi kon xam naa ni duma sori dañuy yëkkati kàddu gi rekk jox ko monsieur mi bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilah rabil aalamiina jërëjëf borom Tuubaa asalaamaaleykum mbooloo mi kenn ku nekk ñu ngi koy nuyu ci turam ak santam maag délégation bi ma àndal ten ngeen cee ràññee Adja Penda Ndiaye di haute conseillère monsieur Mbaye Seck di premier adjoint au maire monsieur Adi di deuxième adjoint au maire Yoni de di responsable APR des femmes. ak monsieur Alé Thiam di responsable politique Amel Ndiaye di conseiller municipal Ibrahima am di conseiller municipal ak ñeneen ñi ci des ñëpp bu ma lemee damay jum noo ngi commencé nuyo bi ci sëñ Axma Mbacké ñoo ngi lay nuyu bu baax di la dalal fii ci Njaañ Njaga Fatim Njaañ di ci tekk sëriñ Amar Njaañ muy suñu wal suñu wasifa suñu euh, wasila di suñu sëriñ di suñu lépp di nuyu sëriñ Njaga di imam di nuyu sëriñ Mor Jaañ président daayira Matlabul Fawzeyni ak équipe bi mu àndal yépp di nuyu njabootu maam Njaga Fatim Jaañ yépp di nuyu sëti sëriñ Tuubaa yi fi teew yépp ci tant bi di nuyu Adja na Ndiaye mi ma àndal muy haute conseillère di nuyu sunu conseil municipaux yi di nuyu suñu délégué de quartier yi di nuyu tous les talibés yi nga xam ne si ñu ngi jógee ci 14 régions yi te gàmmu gi rek yëkkati leen ñu ñëw fii ci Njaañ noo ngi leen di nuyu ñëpp di leen dalal jàmm ak salaam di nuyu responsable politique yi parti yi fii teew te nekk ci biir dëkk bi di nuyu président du conseil local de la jeunesse ak les président Euh, de toutes les ASC ñoo ngi nuyu sëriñ daara yi fi teew ci commune bu Njaañ bi ñoo ngi nuyu ñoom ñëpp di nuyu groupement euh, féminin yi di nuyu communicateur traditionnels yi di nuyu brigade de la gendarmerie di nuyu les agents de santé ak infirmiers yi ak seen équipe bi ñu àndal di nuyu la presse locale kon mën naa ne ñoo ngi nuyu ñëpp ñi fi teew ah di leen ñaanal jàmm ak salaam ku fi ñëwoon yàlla na la yàlla delloo ci sala ci jàmm te nu ñu fi desandit yàlla bàyyi na ci fi jàmm ñu séq jàmm ah mbooloo mi nag ah, lii nag ah, dama ànd ak kontante ak bég ba xam naa ne li ma bëgg a wax lépp duma ko wax ndax lii moom ku fi teew rek ah, sa xol tedd na noo ngi eh, nuyu ñëpp rek sama xol dafa fees li ma bëgg a wax duma ko mën a wax wante lii de moom lu rafet rafet la ndax euh, bërki démb rek la fi président yabal euh, un ministre de la république muy Moustapha Diop mu ñëw fi ak délégation boo xam ne si macha allah tubaarka la ñëw ziare sëriñ bi indil ko ziaro président de la république mu ànd ak mbooloo mu takku kon loolu nu it euh, dañ ciy kontaan lool. ah lii nag nun waa Njaañ gépp ñoo ko bokk ndax nun lépp lu jëmee Njaañ ca kanam rek ci loolu lañuy dox ci loolu la ñuy wéy. ci kàddu sëriñ bi rek la ñu nekk bu nee waaw rek ñu ne waaw bu nee déet it ñu ne déet kon noo ngi jaajëfal mbooloom yëpp di sant yëpp ndax it euh, nii ngeen def vraiment lu rafet rafet la lu rafet lool la te mën naa ne euh, man ngeen koo defal euh, ndax it man taalibe laa ci kër sëriñ bi bu ma koy wax tout le temps dama naan bu ma nekkee ci kër sëriñ bi bu ma kenn ne monsieur le maire nañ ma naan rek monsieur Ndiaga Diop ndax taalibe sëriñ bi laa lu mu bëgg loolu ci laay dox. lu mu bëgg loolu waxuma ca dara kon mbooloo mi euh, duma guddal damay ñaaxaat nit ñi fi nekk rekk euh, population de Njaañ vraiment seen euh, neex ngeen a àndal noo ngi leen di sant bu baax a baax di leen wooyit ñëpp rawetana waa hmm, waa ADN yi waa ADN yi ñoom it nuyu naa leen ndax gis naa seen taxawaay ci dëkk bi ndax euh, bërki démb rek euh, bi ñu demee ba jaaxle ambulance dañoo jënd ab ambulance di ko jox ko municipalité bi municipalité bi dem ko ci poste de santé ba jox leen ko vraiment loolu moom ñoo ngi leen ci gërëm bu baax a baax ah du ma guddal damay delluwaat rek di sant ñëpp di ñaaxaat ñëpp ci liggéey bi daayira bi nag moom mention spéciale vraiment sëñ Mor ñoo ngi lay gërëm bu baax yaa ak équipe bi nga àndal ndax kat euh, gàmm gi bu agsee fii yàlla ak yow a tax yaa ko indi fii ndax ñun ci gàmm gi la nekkoon mais nag gàmm gi tey ni mu doxee. ku fi gàmmoo ren rek bu déwénee buñ koy fekkee jàmm da nga ah man njaañ laay gàmmo ji ndax ah, gàmmo njaañ nag mën naa ne genn gàmmoo gënu koo gënu koo riche kon loolu sëñ Mor noo la ci sant bu baax yaak ah, waa daayira bi ah, ndax seen farluwaay ak seen taxawaay vraiment neex ngeen a àndal te yow damay dégg nga wax damay dégg nga naan yow at mi ak lu mu gudd gudd ak lu mu gàtt gàtt amoo ci lu dul ñaari bis muy màggalu Tuubaa Euh, ak euh, gàmmu yonent bi loolu moom yooyu ñaari bis vraiment at mi yaakaar naa yooyu ñaari bis dara gënu leen cee màgg kon loolu nit ñoo ngi ci sa ginnaaw ah foo ne fii la rek ñu ne foofu la boo ne déet ñu ne déet noo ngi lay ànd ak yow toujours bul jàq bul tiit yow loo yóotu rek bu soobee yàlla danga ko jot ndax it ci développement Njaañ ngay dox te man ku dox ci développement Njaañ rek euh, ànd na ma ak yow noo ngi delluwaat di sant ñëpp di woon ak ñëpp nag nun noo mën a jëmale njaañ ca kanam mais du ko dëkk ca àll ba rek dëkk fii di wax noo mën a jëmale njaañ ca kanam kon nag nan àndandoo bokk ndey bokk bàyyi bañ a xeebante ku nekk ku gis sa morom mel na yow nga gis bu ko defee yaakaar naa li na mu ci ndëkk bi yàlla mën na koo defal barke Sëriñ Tuubaa maa ngi delluwaat di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di leen balu àq leen balaq di jiital ci nuyoo bi Serigne Njaañ Njaga faatim mu tegal ñu ko ci loxol waa Njaañ gi yëpp di nuyu Serigne Ahmad Mbacke mi nga xamante ne bii de moo fi toogal njabootuk sëriñ tuuba mu joxal ñu ko ci diwaanu Njaañ gi yëpp di jaaraat rekk ci li monsieur le maire waxoon ci délégation bi ñu àndal monsieur maire jiitu ci ak sama bàjjan Penda Ndiaye haut conseil ak délégation bi ñu àndal yëpp. di sant bu baax a baax ci li nga xamante ne bii ne moom la mat daayira Matlabul Fawzayni di organiser fii ci Njaañ man nag samay kàddu day jëm ci waa Njaañ ngeen gën a ñaaxu ci daayira bi ndax daayira bi daayira la boo xam ne pour ñun waa Njaañ la kon ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci Njaañ ñoo war a gën a mën a ajarew ci daayira bi ngir mu gën a jëm ca kanam kon loolu man mooy di samay kàddu di sant itam président de la république ndax jàpp naa ne at mu jot dana yebal ndaw mu ñëw ci gàmmu gi kon loolu yëg-yëg la boo xamante ni bi bu mu séq la ak waa Njaañ di ko ci sant itam li nga xam ne waxoon na ko ci tournée bi mu fi ñëwee woon mu ne woon seen yoon wii kat danaa ci jëf ba ngeen xam ne jëf naa ci ragal naa ne lam ci waxoon nekk na ci ñu itam dañ koy gën da ñaaxaat di laaj ndax am nañ yeneen war-war ci dëkk bi ak yeneen tolluwaay ci dëkk bi ndax loolu moo li nga xam ne ñun moom moo ñu war te dëkk bi da koy itteewoo di guddi di ko itteewoo bëccëg loolu mooy li nga xamante ne bii dañ koy yóbbante président de la république parce que bi Moustapha Diop ñëwee démb euh, barki démb waxtaan nañ ci ak moom ci li nga xam ne waa dëkk bi dañ koy soxla guddi. di ko soxla ba cëg te di ko joxe fu ne waa njaañ itam dañ cee yeyoo loolu daal moo doon suñuy kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal yàlla yàlla bàyyi ñu ay déwéni déwén ñu nga def ci gàmm gi jërë ngeen jëf so daayira Matlaboul Fawzayni nag lool ñuy wax maître d'œuvre rek la ndaxte ndigal la jot ci si ay kilifaam kilifa yooyu jot ndigal ci ay kilifa ngir ñu taxawee bis boobu kon képp koo nga xamante ni rek ñëw nga fi teew fi da nga ñëw ci ndigal ngir ñu màggal gis bis bi nga xamante ne nii bis mënu ko sut bis mënu koo féete kaw bis bi nag daayira Matlabul Fawzayni moom ba mu ci jotee ak léegi di ko màggal 1998 la woon te la daayira Matlabul Fawzayni sax tur woowu mi ngi ko jële woon ci sang bu tedd ba Serigne saaliwu Mbacké boobaak léegi at mu jot at mu ñëw rek ñu ni bii dey moom moo dàq bi weesu te loolu lépp ci ndigalu kilifa yi la doxe ndax su fekkoon te ni tey dañ cee génne seen loxo yaakaar naa ni lii du mën a am te ñi koy jëmmali tamit nga xam ne ñoom it ku leen gis sa xel dal ñoom it tamit bis bii def nañ ci liggéey bu am solo moo tax ñu bëggoon wax leen ni leen ci suñu biir gannaaw sëriñ Axma Mbàkke ibnu sëriñ Aliou Mbàkke mi nga xam ne moom moo def ñaan léegi ci bi ñuy ibbi mi ngi fi ci biir mbooloo mi sëriñ Yaddaali Mbàkke ibnu sëriñ Abdou Aziz Mbàkke sëriñ Cheikh Kaala Mbàkke di sët ci sëriñ Masamba Mbàkke sëriñ Alaaji Mbàkke ibnu Alaaji Baara Mbàkke ànd ak magam bu ñuy woowee soxna ummi Mbàkke sëriñ Soy bu Mbàkke ibnu sëriñ Abdou Baaxe Mbàkke mi ngi suñ biir sëriñ Baaxe Bousso mi ngi fi sëriñ Saliou Mbacke ibnu sëriñ Cheikh Dioubé mi ngi fi sëriñ làmp Mbacke ibnu sëriñ Moustapha Goubé mi ngi fi ñooñu ñooy ñi nga xam ni a ah, mën nañ leen rek a lim ci ñi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk waaye du ñoom rek ñi bari ñëw nañ ngir ñu mën a ànd guddi gi màggal ko ci ni nga xamante ni noonu lañ ko bëggee kon nag egsi nañ ci fi nga xam ni dañu yëkkati kàddu gi jox ko koo nga xam ni kenn dootu ko présenté kenn ci pastéefam ci jëmale dëkk bi kanam ci jëmale daayira bi kanam kenn mënul gis benn woote boo xamante ni daf koy woote bu jëmu ci diine kooku mooy kan kooku mooy Serigne Mor Diagne mi nga xam ni moom mooy jëwrinu daayira bi ki nga xamante ne nii wax dëgg yàlla fu mu wootee kenn du taxaw ndaxte wootewul pour boppam dafa woote rek ngir ñëpp koo xamante ne nii bëgg ngaa dem ci lu jëm ci yoonu yàlla nga topp ci ginnaawam kon sëriñ moor ñu jox la kàddu gi nga waxtaan ak mbooloo mi muhammadinil makin wa ala alihi wa maa ngi ziyaara mbokk yi mu teew yépp di leen balu ak di bal ñépp ak góor ak jigéen mag ak ndaw gan ak dëkk di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi sunu sang yu tedd yi nga xam ne ñoo teew ci sunu kanam ñuy xool ci ñoom sëriñ Tuuba ridwanullahi alayhi te a Cheikh Ahmadou nekk ci bopp bi ñu koy ñaanal yàlla guddal aw fanam bàyyi ko ak xelam jéegoom yi it mu yàgg koo dox si nu ànd ko moom te am ci ngërëmal sëñ bi su ma tuddee sëñ Ahmadou nag mbooleem ñi nekk ci gannaawam te bokk ci njabootu sëriñ bi te sëriñ bi tudd seen tur mel na ne tuddaal naa leen ñaan googu yi ñu ngi ci biir li euh, ci toftal sunu kilifa yi nga xam ne ñoo dëkk ak ñun ci barab bi waaye jiite ñu ci liggéey bu bi nu nekk muy njabootu sunu maam Njaga Fatim Jaañ ñu di leen xoole Serigne Diagne Ndiaga Fatick su ko defee dañuy teg nuyoo boobu ci